place yi Sénégal moo nekk di daanu on s'est de Tamba à Dakar pour venir rejoindre l'activité. ah vous entendez donc elle a quitté Tamba jóge Tamba la jóge pour ñëw juste assister euh, manifester ok d'accord je la connais donc kii mooy Zahra Sonko c'est une euh, fille très engagée du côté du président Ousmane Sonko donc elle a fait le déplacement plus d'une euh, euh, centaine de kilomètres. Euh, Euh, pour rallier la capitale sénégalaise donc bravo madame donc mu ngi nii dina leen wax lan moo waral teewaayam fii ci place de la nation. waa xam nga histoire Sénégal tey moom moo nekk nii tey àdduna yëpp ngi ñuy seetaan ñu nekk ndaw président Ousmane Sonko am fu sore sori fu mu ñu yóbbu donc moom bu wootee ak fu ñu munti nekk dañuy bàyyi suñu yitte daal di ñëw. tey nag euh, dinañ bokk incha allah ci histoire du Sénégal comme démb ni ma ko waxee ci benn vidéo tey dinañu bind ci taarixu Sénégal kon tey fii. warul mën a doon lu ñàkk ndax suba suñuy doom dinañ ko waxtaanee tey sii Sidi Lamine Niass nga xam ne tey dëddu na tey mi ngi ci dëgg ñun ñu ngi ci amaana ne ñu ngi ci ñu ngi ci fenn peut-être euh, tey moom yàgg na xeex démocratie yàgg na xeexal Sénégal dem na waaye kuy képp kuy xeexal démocratie booy lim ci ay tuur dinga wut di nga wax tuuram donc ñun dañoo bëgg bokk ci taarixu Sénégal loolu moo ñu waral tey ñu tase fii ci place de l'Obélisque daal di xeexal Sénégal ndax Macky Sall kat bu ñu tëyewul loxoom dina njidd ndab li mais yow euh, en tant que militant de Pastef tey est-ce ragaloo euh, ngeen bañ a bokk ci élection yi yow ragaloo loolu. comme ni ko Ousmane Sonko waxee laa lay tontoo maanaam togg nañ ko waaye fuñ koy yekkee mooy mbir bi président Ousmane Sonko amuñu plan A amuñu plan B amuñu plan Z sunu parce que on a beaucoup subi et Dieu n'est pas injuste Dieu est bu fekkente ni Dieu est juste boobu ñun fa lañ ko lal gëm nañ ne le soir du 24 février. dinañ jubilé dinañ wax président Ousmane Sonko palais de la République incha allah. léegi lan moo war a nekk seen taxawaay euh, pour euh, la journée du 16 euh, mai prochain. rassemblement. ñu wuyu si leen parce que ñoom tamit war nañu xam ne nag lu ëpp tuuru parce que du ñu nangu tamit ñuy caxar caxarte président Ousmane Sonko depuis ba mu duggee ci làngum politique ba léegi donc le 19 bi lu ñu woote incha allah dinañ leen dinañ leen wuyu si loolu. jërëjëf euh, ñu ngi rafetlu teewaay bi Zahra la jóge. ma doon bëgg a wax rek tey lu tax ñu ñëw fii ñun ñëpp gis nañu la teranga sénégalaise et dans le coma wala tee na quoi parce que gis nañ barki démb sax lu xew ngor wane na ko ak c'est-à-dire décision boobu ñu jëloon pour jéem a écarter pro Ousmane Sonko nga xam ne ce qui est impossible parce que il le plus populaire parcours am moo gën a clean si parcours yi. parce que jamonoom la ñu gis ay mouvement des ndongo daara jamonoom la ñu gis les magi Pastef jamonoom la ñu gis même les Baye Fall de Pastef donc ce qui est là mooy 2024 incha allah y aura un changement au Sénégal. incha allah there is no way. merci beaucoup ñu ngi sant bu baax a baax. Euh, lan moo waral sa teewaay fii tey. xanaa ni ñi sonn rek quoi ak industrie bi ne ci réew mi ñi war ko fee mën a dindi parce que nañ waxante dëgg réew mi soppi ko dafa jot parce que metti na. nit ñi sonn nañ ku wax ñi tëj la waa ji ne ci ndëkk bi di buur ko bummi rek léegi am nañ koo xamante ni vraiment jàpp nañ ni njort nañ ni bu ñëwee dañu fayal suñu soxla muy Ousmane Sonko mii na na nit ñi taxaw taxawaay bi xam ni moom li war a def def na ko moom Sonko dañuy ñaan suñu borom jàppale ko yàlla dawa ko réew mu ñëw li ñu yaakaar ci moom liñ yakaar yaakaar ci moom suñu borom defal ko ko ak yaakaar ji askanu yaakaar ci moom yàlla bañ koo tat parce que gëm naa ni Sonko man njort naa ni bu ñëwee ci réew mi dana ko toppi parce que koo xamante ne bëggul dara bëggul xaay bëggul dara moom li ko ñor mooy réew mi waaw. voilà yéen a ngi gis euh, Thierno Alassane. j'ai fait une dans une banque. Mhm. c'est pour la première fois de ma vie que je la place de l'Obélisque. D'accord. Je suis né à Dakar, grandi à Dakar, pire Dakarois. D'accord. Alors bon, qu'est-ce mal Ce qui me fait mal, c'est quoi mm-hmm. Quand je vois mes enfants, la jeunesse, ce que j'ai vécu moi, je le vivent. Nous voulons des gens blancs comme neige. Mm -hmm. Il faut que tout change. Mm -hmm. Toute cette racaille-là, il faut qu'on les change. Nous mhm. voulons du nouveau, mhm. neuf. Mhm. Nous voulons des gens qui vont changer ce pays. Comme qui La liste, elle est longue et interminable. Ils seront là tout à l'heure tous. Moi, je la République des valeurs. Un homme comme Tcherno Alassane Sall, c'est un homme blanc il défend ses valeurs mm qui ont été défigurées par la classe politique. Il faut que ça change

Mais regarde nos enseignants, regarde ceux qui travaillent au niveau de la santé. Mhm. Ils sont des salaires minables. Il faut que ce pays la change. Mhm. Nous, on est immensément riches. La vie de Barthélémy Pelle. Nous commente parce divertir. Hein? Ah il veut nous divertir. Il est, il sénégalais lambda là dépassé là longtemps. il faut que ces choses-là changent. mais peut-être ils vont arrondir leur angle à eux, ah, ah, mais nous le peuple on ne va pas choisir ah, Barthélémy. il a il, il a a déjà fait mal et le mal est profond. ah oui. vous pensez. la logique veut qu'aujourd'hui qu'il se rétracte qu'il revoie sa copie. Mm-hmm. parce que aujourd'hui ce qui se passe dans c'est pas normal on enferme des gens à bout il n'y a plus le droit n'est pas réglé. Mhm. on a une justice qui i à rate. Mhm. ce pays là va mal. Mhm. et la troisième. ne di xeex di la xeex na la yow doo nit ku baax te ñi lay xeex yaa leen gën yaa leen gën ci bëpp côté parce que mun ngaa liggéey am nga xam-xam ay sàcc taxaw ne yow doo ma wax lu tax sama alal bi ma sàcc Ousmane Sonko moo tudd Mame Mbaye Niang yaa yow suñu alal Mame Mbaye Niang sept ans wala cinq ans mën na ko mu ngi sàcc suñu alal ay nit bi ñu ay nit di ko ay journaliste Ousmane Sonko romb rek ñu ne ko yow waroo tudd Mame Mbaye alal ñun waa Fouta ñun ñun waa Saloum ak Fouta ñun ñu dëkk ci àll bi Mame Mbaye Niang suñu alal la yor ñun sëni lu ñu war a financé ñu liggéey suñu alal la Mame Mbaye Niang lekk lekk ba pare bëgg koo reesal fii ci Sénégal Ousmane Sonko loolu ay gént la képp kuy sénégalais boo yaakaare ne Ousmane Sonko moo perte pertewul yow yaa perte Ousmane Sonko bu ko neexoon négocier lekk ay milliards mais deret ji moo raxul naa fekk deretu Ousmane Sonko raxul naa fekk deretu Ousmane Sonko raxul naa fekk nervi na nag dañoo bëri am nay nervi grand mbubu am na nervi fu ne ay lappato lu ne ngi ci réew mi fenkat jaxasekat sàcckat nekkul ci république bu normal bu ñu newoon ci république bu normal Mame Mbaye Niang mi ngi ci kaso gi république bu normal bu ñu teewoon Mame Mbaye Niang mi ngi ci kaso gi jeunes yi nag bu yaakaaree Ousmane Sonko moo perte perte wul de mm. ñun ñooy perte ku tëdd sa kër di nelaw lekk sa ceebu jën bu xonk am sa 5000 boo joxee dépense sa jabar am doom nga ngénte ko foog na réew mi am na jàmm amul jàmm dañoo soxla suñuy doom di jàng ay bus di leen yóbbu comme doomi tubaab yi dañoo soxla ku feebar faju suñu jigéen césarienne bi mu gën a jaar ci yoon réew mi li mu manqué moo bari ay nit ñoo tedd ay nit ñooy tedd ay junni nit di torox di torox man baykat laa saako engrais vingt cinq mille lay jar am na ay tool man waru moon ne fii di taxawaalu daaw heure bi Espagne la ma fekk man man daaw heure bi Espagne la ma fekk man maa namu Sénégal pour ñëw ñibbi Sénégal xeexal sama réew pour liggéey investir mais yow mi am tool fii hectare ab hectare Sénégal di Sénégal yi hectare benn hectare tool boo xamee di walaakaana ab tubaab boo amee hectare di gën a continuer di gën a baax businessman businessman moo war am ay milliards mais politicien warul am ay milliards loolu